beneen affaire boo xam ne ci diggante bi mooy euh, léegi parents d'élèves bi dañoo xaw a tiit. Mhm. moo tax ñu daral kii di Bassirou Sy Bassirou Sy nag nekk nag euh, président bureau exécutif euh, plateforme nationale pour la défense de l'éducation des valeurs. Mhm. en même temps mu jiite gouvernement scolaire bu CM. bu Cambérène mooy CM euh, collège euh, Seydina Issa Laye. d'accord loo tax tey ñu dalal ko pour mën a waxtaanee loolu. ñu ah, merci beaucoup jërëjëf. yaa ah, sant yàlla. bàyyi leen. waaw li ñu mën a wax nag euh, dañoo fixé examen yi dañu wax CFE 22 23 juin 27 juin bac mbirum bac général 14 juillet BFM mais fu mu toll nii tey tiitaange am na ci waajur yi koo tasel rek ñu ngi ne ah parce que comme s ak ñoom. GEM ñoom ñu ngi menacé mbirum examen yi keroog tamit gis na ne euh, yeneen euh, syndicat ñu ngi doon ñaxtu ci mbirum enseignant décisionnaire yi di wax na tamit bu fekk ni jëluñu euh, matuwaay ñoom tamit dinañu am beneen taxawaay ci wàllu examen yi moo tax tey Bassirou si yow mi nga xam ne bokk nga ci parents d'élèves yu CM Cambérène hmm. en même temps jiite kuréel bu ñuy wax Euh, plateforme bi ñu waxee plateforme nationale pour la défense de l' éducation et des valeurs. Hmm. noo gisee d' abord euh, menaces yi nga xam ne jàngalekat yi ñu ngi koy def. mu toll euh, merci beaucoup pour rectification je suis un professeur. ah de lettres d'histoire et de géographie. Hmm. au CEM Seydina Issa hmm. par ailleurs président donc du bureau du bureau national. du bureau exécutif national de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs. voilà mu nga xam ne plateforme bi mu ngi judd le 2 août Euh, parce que ñëpp xam gis nañ lu xew daaw ci école bi ces actes de violence ces actes de vandalisme cette indiscipline qui ne dit pas son nom voilà autant des raisons moo tax euh, euh, daaw ci mois de août bi donc ñu créer la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs am na ay kilifa ñoo ci nekk donc de l'élémentaire à l'universitaire mhm. mu am sax ñoo xamante c'est des enseignants en retraité donc des instituteurs et des professeurs mu am ci ñoo xamante ni ils ont yaa occupé de hautes responsabilités dans ce pays mhm. ku mel ne monsieur Masseck Birane Seck nga xamante ni il est le Euh, le, le par, président du comité. Par, rapport au, au, au, au, ouais, au sujet proprement dit, à savoir ouais. les examens. Aujourd'hui, de réelles menaces. yow nga xam ne tamit euh, euh, parce que ku ne gouvernement scolaire. Mm-hmm. y a les parents d'élèves qui sont qui sont aussi de de mm-hmm. l'affaire parce que mm-hmm. en quelque sorte les professeurs aussi sont des parents d'élèves. absolument aujourd'hui les menaces qui pèsent ba nga xam ne examen yi fu mu toll nii ñi ñi nelaw ñu koo wax mu ne la. ah examen dina am. lan ngay wax ci loolu. waaw loolu li wax ci loolu mooy dalal xelu parents d'élèves yi il va de soi que examen day am ala kulli pourquoi day am c'est vrai que am na ay années yu gënoon a garaaw année bii des années deux mille seize xam nga euh, non mille neuf cent quatre vingt seize ah et les accords de euh, mille neuf cent quatre vingt deux mille dix huit j'allais dire ah deux mille seize deux mille dix huit moo gënoon a dafa dafa amoon ay réquisition xam ne dañuy dem ba ca enseignant bi ci këram di ko réquisitionner yooyu moo gënoon a garaaw mais cette année-ci effectivement il y a eu des il y a plus de onze plans d'action boo xoolee quantum horaire bi normalement au niveau de l'élémentaire c'est neuf cent neuf cent heures boo xoolee dans le moyen normalement donc euh, le professeur di CM il doit être utilisé à quatre-vingt-dix pour cent de ses heures dues boo xoolee maintenant ci secondaire bi à quatre-vingts pour cent donc de leurs heures dues voilà mais boo xoolee tamit euh, cette année bi également c'est une année particulière boo xoolee il n'y a pas eu de euh, fête parce que normalement euh, le trimestre de l'année l'année scolaire à l'élémentaire ñu ngi ko diviser en trois trimestres boo xoolee premier trimestre bi du 5 octobre la ba ba 2 janvier deuxième trimestre bi mu ngi jël 2 2 janvier ba ba ba ba ba mars vingt cinq vingt cinq mais mais bu ñu ñëwee trimestre bi épreuve éducation physique et sportive waaw ma ñëw nu mu demee noonu. damay ñëw foofu léegi nga ne yow mënul am menace. maa ngi ñëw. Mhm. ba mu dégloo di nga comprendre. waaw je suis en train d'expliquer. Mhm. d'abord ma ne euh, léegi boo xoolee pak presque quinze jours la war na doon quinze jours mais boo xoolee benn fan la mooy presque le lundi de Pâques comprendre nga effectivement euh, il y a eu du boycott. euh, n'est-ce pas comment dirais encore des épreuves d'éducation physique et je vous rappelle que euh, euh, euh le président de l'association des professeurs euh, d'enseignants d'éducation physique ils sont dans le bureau dans le bureau exécutif de notre plateforme ainsi que son secrétaire général loolu précision la waaw dama bëgg expliquer professeur yooyu ngay wax ñu nekk en grève ki ki leen jiite mbaalo taay la tudd Mbalotay mooy seen président Mbalotay boobu mu ngi ci bureau exécutif suñu plateforme secrétaire général am Babacar Ndiaye mu ngi ci bureau exécutif suñu plateforme donc man mi wax xam naa bu baax li may wax effectivement il y a des problèmes au début pourquoi problème yooyu moo problème yooyu parce que le ministre de euh, de, de, de finance finances euh, Abdoulaye Daouda Diallo ne veut pas respecter les engagements boo xoolee engagement yi ñu signé woon ak ak ak ak les syndicats. mais justement ah, ah, ah su fekkee ni loolu. moo ñëwoon naat répercuté. si si si si si si cas yi ñu wax ñoom fenn. waaw bon da nga may bàyyi ma ma pour que nga comprendre pour que nit ñi mën a comprendre. waaw dama ne ñoom période bi ñuy grève période boobu le gouvernement n'avait pas respecté ses engagements parce que li ñu waxoon lu ñuy viréel enseignants yi vire wu ñu lépp. il ne veut pas tout virer parce que dañu ah, dañu dañu dañu amoon imposition te dañu waxoon augmentation yi warul am impôt loolu moom moo tax euh, euh, euh, SAEMS ak CISEMS def recevoir un autre plan d'action est-ce que comprendre nga loolu moom moo tax les professeurs d'éducation civique et, ah, donc ñoom tamit ñu banque seen loxo mais après il y a encore des négociations pour revoir les accords le ministre de de de de, de l'éducation le ministre de la fonction euh, publique le ministre des finances et les syndicats les groupes de non non da da ngeen may déglu s'il vous si si gis nga man bu ngeen ma dégloo da ngeen man je suis un homme libre c'est fondamentalement important man gouvernement ak opposition laa yemale donc il faut que man damay li ma bëgg ngeen comprendre damay wax te boo daanewul doo comprendre. ce que je veux dire da ngay gaawantu waaw li ma bëgg a wax mooy. waxtu la ma bëgg wax mooy. amoon na ay grève mhm. dernier plan d'action bi. Mhm. mais tey jii nii ñëpp ñu ngi jàngale. waa SAEMS waa SAEMS. Mhm. ak waa ki ki SAEMS ñoom ñëpp tey ñu ngi jàngale. mais ñu ngi dànkaafu de. da nga ma déglu ma wax la ah, rek. ñoom ngi dànkaafu de man enseignant la. on nous a viré les problèmes ont été réglés. d'accord est-ce que comprendre tous les enseignants aujourd'hui au Sénégal waa li ma bëgg wax mooy mhm. au début il y avait des problèmes mhm. parce que le ministre n'avait pas respecté ses engagements ci lim ñu war ci lim ñu waroon a ci lim ñu waroon a dugalal monsieur mhm. am na loo tiit lu tax nga ñëw di expliquer que da ngay dalal xelu parents d'élèves yi man li ma war a xam ne ni a def li ñu war a aborder waaw li dafa bëri du loolu kese du le système éducatif qui en mal bi la li ma bëgg wax mooy question bi la teewoo njëkk laaj mooy est-ce que man dama koy yor a formuler est-ce que d'accord nga ni examen yi ñu ngi ci sursis yi ndax inquiétude parents yi non day am ala kulli haal non waxuñu dina am wala parce que daaw échec bi mooy problème parce que SAEMS lu ñuy wax lu leer la dañoo ne carrément que ñoom bu fekkee ni li ñuy wax respecté wuñu ko ah. te boobu jamono enseignant décisionnaire yi ajuma bi passé gis ngeen ne def nañ Ah, dana doxu ñaxtu. waaw booru euh, maanaam euh, fële ca rond point centenaire. waaw marche bu ñu doon def. ñuy wax tamit ne dañuy régler seen cas sinon aussi ñoom aussi dañuy yëngu-yëngal donc ñaari cas yooyu te dañoo jëloon ne éducation physique sportive yi munu am te incidence mooy lenn kuy def concours tey dañ lay wax affaire notre hmm. éducation physique daf ci bokk épreuve physique te loolu yëpp day am incidence est que tey ak condition yi ñëpp Semedo waaw la plateforme nationale. waaw pour la défense de l'éducation et des valeurs. Mm-hmm. est à équidistance. Mm-hmm. entre les syndicalistes et l'État. waaw mm-hmm. son rôle est de renforcer le système éducatif sénégalais. mais mais est-ce que comprends nga. léegi li ma bëgg wax. waaw mooy effectivement ay grève amoon na. dernier plan d'action bii nii lu ko waral mooy dañu waxoon au mois de mai on va virer au mois de mai. Mhm. parce que les les accords ont été signés depuis le mois de février le 26 février ñuy toog ba 26 février ba mois de mai grève amul. lan moo ko waral parce que dañ doon xaar mois de mai. dañ doon xaar virement yi virement yi ba mu amee constaté nañu il y a eu des impositions. Mhm. comprends nga. Mhm. loolu moom moo tax SAEMS ak CUSEMS ak G20 G20 ñu déclenché waat ay. mot d'ordre bañ ko déclenché waatee ministre de l'éducation euh, ministre de de de euh, des finances moom ci boppam il a reconnu qu'il la qu'il a fait des erreurs. Mhm. erreurs d'interprétation ñu demaat ñu daje. muy Sowru Sène. muy yaa ngi ci justification. non non je ne je ne suis pas. daanelal foofu damay damay may daaneel mooy. Mhm. après bu ñu toogaatee nag. Mhm. ils ont viré tout le monde. ku nekk boo xoolee sa bulletin. tey jii ne lu mu dee de am na 500000 francs est-ce que yaa ngi dégg li ma la wax nii waaw da nga may déglu rek bu ngeen ma déglu man je suis un enseignant je parle de man je dans le système. d'accord Sowru Sène il est dans notre plateforme. Mhm. plateforme pour la pour de l'éducation. kon ñoom dañuy pour casse la leur casse a été très légitime et ça a porté ses fruits. mooy li ñu doon wax mooy li ñu daggoon. Mhm. impôts dañ dañ ko war a delloo. effectivement toog nañu avec le ministre delloo nañ ko te ñu ne en bu nekk dem nga xool sa. sa bulletin mais lu tax sa gars yi di dànkaafu nag. Ah, c'est ça notre problème. sa gars dànkaafu na ñoom fu mu toll nii à ah, CMC ak CICEM. neneen bu fekkee ni moom yëf nekkul dañ delloo buum sa boy ba. loolu euh, tamit dox def doxu ñaxtu mooy waa mooy mooy enseignant yi. ne li ma lay wax nii enseignant décisionnaire yi. waaw c'est vrai mais pour état bi engagement yi mu jëloon ak enseignants yi aussi il ne l'avait pas respecté moo tax ñu déclenché un dernier plan d'action. Mm. mais bañ ko déclenché la la la le ministre bi les les ministres ce n'est même pas le ministre c'est le ministre de l'éducation ministre de la fonction publique euh, ministre euh, des ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec le groupe G7 nga xam ne mu ngi ci ak ñeneen ñoom Abdoulaye Ndoye jigéen ci. te tey nag insisté nañ ci benn affaire nee na ñoom Abdoulaye Ndoye. ñoom insisté nañ ci benn affaire mais ne dama ne organisation yi. organisation examen yi nee nañ li li ñu leen doon def li leen doon def. duñ ko nanguti maanaam. état bi buy organiser. day laaj candidat yi ay frais. boo paree bu ñu war leen fay seen indemnité dañ ciy daw ba année prochaine ñuy mujjee di def ay plan d'action nee nañ année bi galaa ñuy dem examen nañ leen jox seen xaalis. Mm-hmm. loolu je suis parfaitement d'accord totalement en phase avec ça c'est-à-dire que il faut qu'on corrige également les les erreurs mënuma comprendre enseignant boo xamante ni dafa war a dem corriger ji mm-hmm. mais moom mooy jël ay moyens te fii nii le seul coréen dans l' état képp kuy dem feneen dinañ la jox sa duy nga mu nga dem. Mm. mais enseignant rek moom mooy am examen mu dem foofu avec ses propres moyens. Mm-hmm. dans des zones parfois très reculées comprendre nga mu toog ba ay octobre novembre décembre te joxuñu ko. donc donc ces frais de déplacement ak ces indemnités entre autres. Mm-hmm. loolu ce n' est pas normal on le dénonce. d' accord vous avez compris. Mm-hmm. loolu on le dénonce parce que tey jii nii c' est vrai que boo demee ci collège bi. mais les les les les élèves au BFM ils francs pour les frais d'examen au au au au bac c'est 5000 francs à notre époque. xaw ma ndax ren 10 000 la wala. mais c'était à mais c'était à 5000 francs mais ce que je veux dire. foofu état bi war na jël ay responsabilités parce que loolu loolu warul ça ne doit pas faire l'objet de grève yooyu parce que yooyu dañ ko war a régler c'est des détails yoo xam ne dañ ko ah war a régler mhm. une bonne fois pour toutes kon ñiy grève ci wàllu amuñu droit di di ci ci li xanaa yow déggoo wolof. dama ne l'état a tort. non waxuma état. da nga ne yooyu jarul grève. yan noonu. c'est des euh, détails jarul grève ce que je dis jarul grève mooy état bi warul sàggan. noo man waxuma état. non dama ne. non ce mooy boo ma dégloo di nga comprendre. dañuy lu tax ma ne la jarul grève. Mm-hmm. c'est parce que état bi moo sàggan ba ay grève di am. la grève c'est le droit le plus absolu. Mm-hmm. aux travailleurs. dama nag bu ñu demee nag bay grève ci ay ay ay correction de BFM ay bac loolu dama ne càggante état bi la. Mm-hmm. war ñu faa yegg. am na leen lu xew ci bac bi. parce que bi syndicaliste yi annoncé euh, grève yi. Mm-hmm. Euh, si euh, désaccords yi am ci dernier accord yi. office du bac dafa changé ñenn ñi nga xam ne ñooñu lañ déployé woon pour nekk président de jury. mu nekk nag li nga xam ne itam neexul syndicaliste yi. non loolu moom man loolu moom vraiment mënuma cee sori parce que je ne maîtrise pas ce sujet bi maîtriser non non non déglu ma la rek déglu ma waaw waaw da nga may déglu man du fi toog di wax ay conneries di wax ay histoire moi ce que je da may déglu non conneries sax duñ ko non non non waaw justement dama bëgg wax ne man du ma dugg ci débat bu ma maîtriser wul. Hmm. est-ce que comprendre nga. mais mais monsieur Sy est amoo débat yoo maîtriser yu bari yoo xam ne yow sa plateforme bi nga jiite déjà. comme daf war a ko war a. Euh, juste que bu fekkee da nga ñëw pour enfoncer sa mbokk syndicaliste yi nga xam ne nii.